Souleymane Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di sant ni leen def. voilà Souleymane Diallo nga nekk njiitu ONG internationale Otra Africa déjà ma lay laaj naka nga analyser tëj gi ñu tëj euh, consul sénégalais yi nekk ci bitim réew ban analyse nga siy def. waaw vraiment analyse bu ñu ci njëkk a def mooy ni ñuy massawu sunu mbokk yi nekk bitim réew particulièrement ci Italie ak ci Milan. Euh, xew-xew yi am fan yi euh, lu ñu bett la bett nañu trop. ndaxte Sénégal euh, réseau consulaire am euh, dafa mës a euh, fonctionner fàttaliku ñu fu Sénégal tëjee consulat wala ambassade pour ay trouble mësoon na fi gën a métti mësoon na fi gën a tar mais dañu mës a liggéey ak consulat yi ñun bu ñu nekkee Madrid en 2011 dañu daan mobiliser wu si buntu consulat bi te consulat bi dañu nekk ci biir liggéey ñun ñu nekk si buntu bi di manifester wu policiers yi ñëw taxaw journalistes yi ñëw jël ñu ñu def suñu revendication mais suñu dal ci kaw doomu aadama ba di yàq donc li xaw fan yi vraiment Milan euh, ëpp na jéggi na dayoo te dina métti askan bi te askan ñu Milan dañ ko dund lu mat lu mu néew néew fukki at dañ ko dund conséquences yi dañ ko dund lu mu néew néew fukki at. d'accord si conséquences yooyu foog ñu taxaw si Souleymane Diallo tëj nañu consul yi euh, sénégalais yi nekk si diaspora yi yan jafe-jafe la ñu nar a am daar daar. waaw daar daar mooy ni que xam ngeen ñun autre africain. Mhm. foo leen ñu musaan dégg rek dañu mës a waxtaan di wax état bi di interpeller état bi di wax ak waa gouvernement bi. di wax ak réseau diplomatique yi nañu faciliter sénégalais yi ni ñuy jotee seen ay euh, këyit ne Sénégalais yi nan la ñu jotee seen ay bataaxal sénégale yi nan la jotee seen ay passeport seen ay carte d'identité nañ leen ko yombal donc ñun dañu mës a taxaw di laajte loolu di taxaw Sénégalais yi pour loolu na mës a am donc mënuñu ñëw tey gis ay doomu Sénégal dugg ci biir consulat yi di ko tas te duñu noppi conséquences yi yu métti la conséquences yu métti la yoo xam ne tey boo xoolee ku waroon tey soxla kayitu juddu doomam pour mun ko déclarer ci entreprise bi nga nekk dootoo ko mën ci ku soxla woon tey carte d'identité def déclaration carte d'identité si Milan dootoo ko defati ku sa mbokk làkk woon Milan nga soxla tey euh, certificat de décès bi pour def procédure ñu fay la wala ñu indemniser la dootoo ko mun a defati tey bu ñu la war boo waroon mën a wut passeport pour mën a dem renouveler sa contrat fi ngay liggéeyee wala nga war a mën a renouveler sa carte de résidence fi ngay liggéeyee dootoo ko mën a defati te boo amulee carte de résidence si situation irrégularité ngay nekk donc c'est très lourd de fii ak fukki at ñu sénégalais yi nekk Milan diñ ko dund parce que di nga ñëw di wut kayit ñu ne la kayit boobu si ñu tasoon la bokkoon si ordinateur yi ñu yóbbu si ordinateur yi ñu kii yàq nañu loo xam ne c'est inestimable te munoon nañu ñaxtu li ñuy ñaxtu te du ñu yegg foofu ñaaw na trop di lii moom wax dëgg yàlla te sénégalais yi dañ leen mës a respecté Italie sénégalais bi boo taxoon Italie dañ lay ne kii ñu dal lañu ñii ñu yaru lañu ñii ñu bëgg liggéey lañu ñii ñu bëgg a diine ñu am xam-xam lañu tey image boobu la ñu bëgg a jaay Occident te wax dëgg yàlla mënoon na bañ a ñàkk. Mhm. tey Souleymane Diallo nga nekk sénégalais naka nga jàngatee fitna bi nga xam ne euh, ñu ngi koy dund fii ci réew mi mu dem bay répercuter aussi ci bitim réew. waaw xam nga fitu fit fitna bi bon fi mu sooxee ko ak fi mu jugee yëpp. Euh, man mën naa ne ni que euh, peut-être sax du loon lu lu jaadu waaye contexte politiku Sénégal dafa mës a am euh, xaajaloo mais dañu mës a toog waxtaan dañ ko mës a dépassé tew dernièrement li ñu mës li ñu gis nii mësuñu ko gis ay nit di jël ay mool di ko dóor ay alkaati nii bax dafa ëpp violence bi ñu gis nii wax dëgg yàlla am na fi ay kii manifestation politique ay événement yu ngadd mais bii dafa jéggi dafa ëpp dayoo donc euh, contexte euh, période électo élection nag dina am ay xaajaloo dina am ay kii yu loolu nag àdduna bi fépp la si dëkku tubaab yi day am tension si dëkku Afrique yi gis nañ ko fii boo leen xoolee yenn dëkk yëpp dina am mais ak lu mu si munti demee dama ne ñi bëgg ak ñi joxe nañu ku si nekk si ñoom na nga bàyyi xel si njaboot gi na nga bàyyi xel ci réew mi gis nga réew mi buñ ko taalee def ko ay bu def ko doomu taal ki nekk ci réew mi fu mu toll nii ñuy ne dafa war a dem warul dem ma ne troisième mandat wala troisième candidature mhm. fu mu munti mujje askan bi mooy atte parce que askan bi rek mooy tànn kan la te bés dina ñëw ñoom ñooy tànn donc jarul yenn yi jarul ngay taal réew mi parce que boo taalee réew mi nga yàq liñ fi yàq yépp nga génnee ak ngay sëgg di delloo lenge yi wala xamoo nu ñuy delloo lenge yi su boobaa sa gàcce la mais également ki bëgg a jël réew mi boo ñëw fi boo fi fexee ba mu taal réew mi def ko doomu taal boo ñëwee réew mu yàqu réew mu tas réew mu amul dara ngay nekk te su boobaa ce programme bi nga doon di wax programme de développement dootoo ko appliquer programme de reconstruction ngay nekk di nga perdre ay ati at pour nga mun a reconstruire balaa ngay wax waxu développement donc ñoom ñaar ñëpp ki nekk ci pouvoir comme ki nekk ci opposition nañu xool bu baax fi ñuy teg seen tànk nañu xool bu baax li ñuy def su nekkee ngir njëriñu askan bi la ñuy def taal bi ak yàq bi amu fi place. Euh, tey jii yéen waa Otra euh, Africa est-ce que am ngeen ay jéego yoo xam ni yéen a ngi koy taxawal pour jàppale euh, sénégalais yi nga xam ni ñu ngi ci diaspora bi surtout ci période crise bi. xam ngeen autre Africa. Mhm. fu ñu musaan wax sénégalais bu nekk en difficulté ci àdduna bi. autre Africa taxawu na. foo leen déggee autre Africa. dafay wax pour ñu yokk nan la doomu sénégalais yi nekkee bitim réew. Mhm. soit nan la ñu jotee seen ay kayit nan la ñu jotee seen ay passeport doomu euh, Sénégal fu mu toroxee bitim réew. autre Africa même bu amul moyen dina ñëw masawu la taxawu la accompagner la lu ñu war a wax ñu wax ko lu ñu war a dox ñu dox ko lu ñu war a def ñu def ko ba kooku xam ne ni Sénégal bàyyiwu ko gannaaw bii pa tamit loolu mooy suñu war parce que ñun ñu taxaw di ne gouvernement bi jàppale leen doomu Sénégal yi nekk bitim réew acculé leen chaque fois ñu ni ñu ngi def ay alerte chaque fois ñu ngi kii ñu dal ci alalu Sénégal bi nga xam ne yow mii di wax yaa ko moom hmm. man mii di wax maa ko moom ki nga xam ne moo ko def moo ko moom fonctionnaire bi moo ko moom alalu Sénégal boobu ay samba boy jow taxaw tas ko yàqati ko ñun ñuy noppi di ne non wax xamuñu ko wala duñ si wax dara kooku du suñu cër suñu cër mooy naqarlu loolu waxaat ñooñu ne leen li ngeen yàq nii de munoon ngeen tas munoon ngeen yem ci buntu consulat bi munoon ngeen wax munoon ngeen dugg consulat bi sax wax ak personnel bi waaye yàq bi wax dëgg yàlla dañ koy dàq rafetluwuñ ko ñun lool mooy suñu position lool mooy suñu taxawaay mooy ni que ak lu munti am lu munti am Sénégal benn la rek ki nekk bitim réew loo mun munti bët lu nekk bitim réew bitim réew na nga bàyyi xel ni doomu Sénégal nga léegi nag yow nga am nationalité réew mi nga nekk mhm. ba nga xam ne yow yaa ngi jàpp sa bopp sénégalais ngay kaas yaa ngi yàqal ñi nga xam ne amuñu kayit ñi am kayit nekk ci dëkk yooyu nañu xam ne dañu war a renouveler seen document surtout ñi nekk Milan surtout ñi nekk Milan dañu war a renouveler seen document bu ñu renouveler wul seen document boobu su ma ñëwee pour renouveler seen document dina am ñeneen ñi nga xam ne nag dañuy soxla ay kayit pour seen kayitu doom pour régulariser seen situation wala seen ay mbokk dañu faatu ñu war a fayeeku ñu war a am certificat de décès wala nga soxla passeport pour renouveler sa carte de séjour wala nga renouveler sa contrat de travail ñooñu ñëpp ñëpp ñëpp ci problème bi la ñu des problème bi dina fukki at ñi nekk Milan dañ ko dugg di nga dem di wuti këyit ñu ne la sa këyit yàqu woon na ci jamono incident yi est ce jar na ko nañu xam xoolaat bu baax li ñuy def nañu xam bu baax li ñuy def yenn yi jaru ko. kon kon da tey daal fi ñu toll nii daal gis nga ni dialogue rek moo mën a génne Sénégal ci guuta gi mu dugg actuellement. dama ni. aduna mm-hmm. euh, euh, lépp loo munti gis waxtaan la. Mm-hmm. lu amul waxtaan du jàll. Sénégal gënoon na fi métti dañu doon toog di waxtaan. ñun autre Africa kenn ci dialogue bi. waaye defuñu ko dara. dañu jàpp ni que ay doomu Sénégal ay kilifawu Sénégal ay boroom xam-xamu Sénégal ay ñu war a waxal Sénégal ñoo fa dem te li ñuy wax njëriñu Sénégal la te buñ fa génnee ñun la ñu waxtaanal. dialogue bi pour Sénégal la bu lépp luñ fa munti wax ñun peuple sénégalais bi ñun ñooy témoin wu loolu luñ sa waxtaanee la ñoom suñu tëj tëjuwee ba waxtaan ba génnee ñu seen bataaxal ne ñu ah ñun de waxtaan nañu tombé nañu d'accord si lii tënk nañu si lii su boobaa ñun tëb ko peuple bi ñun ñooy nekk seede wu loolu donc ñu nekk fa ak ñu bañ fa nekk l'essentiel mooy ni que dëkk bi dañ koy péncoo dañ koy péncoo béy dëkk bi dañ koy waxtaanee kii def na lu mu warul def kii wax na lu mu warul wax kii teg na lu warul teg mais lépp si toog waxtaane delloo ak si yoon lañu nekk ki am dëgg ak ki ñu tooñ ki ñu tooñ ak ki ñu war a ñëpp toog waxtaan dëgg bi dellu si waat dëkk bi ñu defaraat suñu dëkk Sénégal commencé woon na génne Sénégal commencé woon na dem ala kulli ali ala kulli ali dañu toog waxtaan. voilà euh, Souleymane Diallo dernière question rek est-ce que problème émigration clandestine dañ ko xaw a gëj a dégg tuuti est-ce que ba léegi ndaw yi ñi ngi jël euh, gaal yi wala wàññeeku na bu baax a baax. dama ni dëkk bi tey fu ñu toll nii. ak li ñu nekk di def nii. émigration de ngeen di ubbi. buntu émigration irrégulière ngeen di ubbi. dëkk bi bu nekkee bu nekkee dëkk bi la ñu bëgg a yàq dëkk bi la ñu bëgg a taal ñi nga ñi ñu yaakaarul woon ci immigration dootuñu wax waxu mbëkk mi sax ndox mi la ñu dox bi la ñu wax nit yi dañu dox génn Sénégal xam nga ñii dañu jël gaal yi di dem dootuñu wax waxu mbëkk bi lii bu continuer di nga gis ku takka bagaasam yenn ko teg ko ci boppam di dox di wuti yeneen réew yi émigration ci irrégulière bi mu ngi fi ba léegi ndëgam boobu moo kiiwoon incident yi bu continuer di nga gis euh, ku yore njabootam ne soxnaam ne ay doomam takkaleen seen bagage ñu yenn ko traverse frontière yi def def daw làqu ñu xoolaat bu baax li ñuy def ci réew mi. Souleymane Diallo maa ngi lay remercier bu baax a baax. maa ngi leen di remercier yéen tam bu baax maa ngi ñaan daal euh, ñii di wax nañu xool bu baax li ñuy wax. bëri na ay manipulation trop trop trop bëri na ay fake news bëri na de part et d'autre nag de part d'autre nit boo demee ba di wax xoolal lu baax xoolal lu rafet xoolal luy tabax xoolal luy defar lu mu métti métti ak foo munti même bu la tooñee boo waxee wax ju baax boo waxee wax juy defar mën na am di nga jot sa dëgg bu nekkee da nga bëgg a defar xoolal wax ju baax wax ju dëggu nga teg ko pour defar loolu mooy nit kuy defar maa ngi jégalu nag wax ji mën na am dafa dëng mais nopp yu am xel nopp yu baax yi dañu dégg bu baax ni nga ko bëgg a merci beaucoup Souleymane Diallo may fàttali ni yow yaay njiitu ONG internationale bi di Otra-Africa ñu lay remercier bu baax a baax ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu suñuy laaj. jërë tontu suñuy laaj. jërë ngeen jëf.